lii dama jaral lu ne. man góor du ma asale góor du ma gëtëng. mais dama la ne. paquet du biscuit. benn doo koy yëy. li ma waxoon maa ngi jaba tey. li wax ji di gën a bari mu gën a metti mais ku bëgg a gis prix dur prix dur. xeex naa mu joo xamante ne sama bakkan laay teg. man foo sax bëgguma ñàkk. waxuma laaj nag ñu dugg biir kii. koo rek maa la gën a xottee. fuuf xotteeku yow man man may yàqu. la wax man damaa yàqu. waaw maa la gën a xottee. ñu tàngoo yàqu di dem. lii dama jaral lu ne. man góor du ma asale góor du ma gëtëng. mais dama la ne. paquet du biscuit. benn doo ko yëy. li ma waxoon maa ngi jaba tey. li wax ji di gën a bari mu gën a metti. mais ku bëgg a gis prix dur prix dur. xeex naa mu joo xamante ne sama bakkan laay teg. man foo sax bugguma ma waxuma laaj nag ñu dugg biir yéen. rek léegi maa la gën a xotteeku fuuf. xotteeku yow man man may yàqu. la wax man damaa yàqu. waaw maa la gën a xotteeku. xotteeku nekk ñu tàggoo yàqu lamb ji jaral lu ne. man góor du ma asale góor du ma gëtëng. mais dama la ne. paquet du biscuit. benn doo ko li ma waxoon maa ngi jaba tey. li wax ji di gën a bari mu gën a metti. mais ku bëgg gis prix duur prix duur. xeex lamb joo xam. ziar yow gannaaw bi. mais tey ñëw ngeen si diwaan boo xamante ne. fii ñëpp fi bëgg a ñëw. fi mooy jàmm gën. yaa ngi arrêté seen ciiri fii nii. si digg ñànk bi nga nekk. mais nag Modou Lo benn message laa lay lancé yow yow Modou sax si loo dugg yow barki alxuraani e karim Modou xamul si lu mu dugg sax gannaaw bi. billaahi. lan la dugg. xamu ko sax si booy bu ndaw bi la dugg yal min bi. non Modou Lo Modou am nga problème ñun boo jàmm gani ñun ñëpp a si ginnaaw si te ñun ñëpp te amuñu lu ñuy ragal te duñ tiit. xalaatuñ ko sax. mais tamit ñu ngi ñaanal suñu mbër Ndiago. mais mais dinañu ñun pare nañ bu yàgg. rek ñun pare nañ bu yàgg instant xoola le 24 la xar ñu jëli ji ko ñëwaat waaw instant yi bi mi ngi fii tegu. moom day tuulal de. dégg nga ñu ngi ñaanal Ndiago suñu booy bu ndaw bi ya Lamine Yamal Lamine waay waay waay waay waay arène bi am nañ problème. mooy borom arène sëñ Siidi. mooy borom arène sëñ fi a toj fëll bi. barki alxuraan al karim. oh booy. lamb ji ñoo am problème si boppam Papa Ndiago Ndiago or bi. Lamine Yamal. kooku lu mu lu mu fa fekk dami. billaahi ñun xamuñu yoot ñun duñu yoot. wóor na yàlla. jëlal ma lii liggéey bu rafet bi waaw ba léegi ah ñu ngi at jàmm gën ah di fas yéene waxtaan ak gars yi ci événement la 24 Siteu Modou Lo coowal lamb mais combat grands événements boo xamante ne tey combat royal la bëree di nuyu structure jàmbar production nuyu ñëpp liggéey bi am na solo lool boo xamante ne def ci lamb lii mooy lamb ah saa bu lamb xewee événement lay doon ci réew mi Siteu di bëreel couronne loo xamante ne tey ñu bëree bëri ci bëri ci lamb ñu ko fi jiitu bëriwuñu ko yàlla dogal tey mu di ko bëre mais maa ngi toog doomu Siteu fas yéene koo laaj sabaa ji ni muy waajee yalmin bi. <laughs> salaamaaleykum gars yi maa ngi nuyu ñëpp nag di nuyu champion yëpp di nuyu waa Diamaguène bi fépp nag. Uh-huh. fu waay mën a uh-huh. nekkee rek. Uh-huh. di bëggee Siteu di bëggee Papa Ndiaw rek. maa lay nuyu bu baax a baax di la ñaanal jàmm wala 24. incha allah rabi di ngeen gis ñaari mbëri nuy dugg say arène national loolu moom amul benn belem moom parce que ñu ngi si liggéey lépp leen war dinañ ko def duñu rusloo benn supporter incha allah rabil ñaari ndam dina dugg biir jaamu gën bu xaayee rek ñor na yee. incha allah bi ñaari ndam dina dugg géejawaay euh, jaamu gën muy lamb joo lamb ju rëy tey boo xoolee ki nga xamante ne mooy Siteu ak Modou Lo joxuñu Siteu benn faveur ci biir combat bi lépp dañu ko féetale Modou Lo loolu loolu jaaxaw ci biir làmb ji. man loolu noonu la ma neexee nag ñaaka jox favori bi man loolu daf ma neex xam pourquoi pas parce que tey bëgguma ñu jox Siteu favori man bëgguma loolu. man dama bëgg chaque jour rek ñu jox Modou Lo favori bala 24 Siteu ñëw wane boppam man loolu laa bëgg. mais moo tax. ah parce que comme kay loolu la gaa yi jàpp kon nañ ko ne def noonu rek te barki alxuraan karim parce que maa ngi gis ay message yoo xamante ni mi ngi jàll quoi si dëkk bi te xaw ma ay góoram baxal nekk fii si taal téléphone am di saaga yooyu dafa amul sens parce que ñun Siteu ak Modou tey fii doo gis benn boy bi taal portable di saaga quoi tey ma neexee taal sama portable saaga loolu amul sens parce que làmb la. Siteu Modou barki alxuraan karim laa du ñu ay noon dañuy mayante xaalis barki alxuraan mais làmb ji nii barki alxuraanu karim laa la di dinañ xam ne ñoom du ñu ñu millier ñun doxuñu millier. dégguma nga ne ñu xam ne ñoom. barki Seydina Muhammad eh. làmb ji ñoom dinañ xam ne du ñu millier. dawuñu jàmbaar ñoom. dawuñu jàmbaar góoram mbaxal robinet bu yàqu la naati peex la bisaab la day yëbb feegi dunk nga. sa kii moog pim bi du ay morom man ak moom ñoo morom te man sax du ma moromam dama wàccee sama bopp ba zéro di wax ak moom. mais lan la. non làmb ji booy teg moo mënul nekk tey maa nga dégg tey miy def ay interview am di wax ay wax yoo xam amul benn sens loolu du cadre làmb ji Siteu ak ñoo dugg si géew bi ñun suñu yoon new dañuy neutre mais barki alxuraanu karim la combat bi ñoom dañoo nara a dar seen gémmiñ te barki Seydina Muhammad média laa ko waxee. barki alquranu karim. billaahi wallaahi wa taala Siteu day daan Modou ah, doomu Siteu. barki Seydina Muhammad. eh lamb am na faar de. barki alquran. man sama doomu ndey ñoo toog de. tànga de sama doomu ndey moom man ak ñoo toog. Eh. te déggoo mu de. billaahi wallaahi wa billaahi bii du bu ñuy dafa am foo xamante ne teg. billaay wallaay wa tallaay Lamine boo xoolee ba mu commencé ba tey <laughs> defuma interview waxuma taaluma sama portable wax lii nag laa doon xaar barki alxuraanu karim Lamine ji nan leen se jaaxle ñoom ñëpp billaahi yow ay maaraaw moo loo dugg ci biir def fi 28 jours. <laughs> léegi da ngeen da laaj xaw ma Aliou Kéré xaw ma Mademba Kéré ñun dunduñu kooku kooku tojul kooku fan la toj kii kooku. kooku di courtier kooku di ut waay kooku déggoo booy bu ndaw bii nii sax kooku mënu ko mënul ko dara rawatina mu kooku fan ba léegi xam léegi la nee na dugg na fi def xam 29 jours laaj ko ban néeg la fanaan ban kër la doon fanaan laaj ko ko ñooñu xamuñu fi ñuy taxaw ñoom ay féegi dungu leen xamuñu dañuy nelaw noonu rek voilà noonu la demee quoi. illa mais lamb ji day dayo bi coowu lamb ji fu mu toll. <laughs> coowu lamb parce que maa ngi dégg ñu naan ay waa Pikine waa Diamaguène lañu faral. mais dañuy wax ne dëgg Pikine ak Diamaguène du dër bi Pikine a ngi nii soriwul Pikine ak Diamaguène ñoo bokk ndey ak baay c'est vrai que nag adversaire bu doxee bëree la bu jotee dañuy bëree mu si da Ama Baldé bu jotee dañuy bëree mais nekkul Ama nekkul Modou Lo lu mu daan fee ne ñaari nit moo tax ñu faral ko de déedéet non non jamais de la vie barki alxuraan. waa Pikine barki alxuraan kay am na xam ne dañuy bëgg Siteu combat Siteu bu jotee dañuy ñëw fii. waa Pi waa jàmm gën combat Ama bu jotee dañuy jaar nii di dem. kon ñoo bokk ndey ak baay lépp si banlieue bi la ñun banlieue lañu am. dañoo dëkk si baale bi fi nga xam ne foofu la coono tàmbalee. booy ñi ñuy yoruñu te ñi ñi amuñu. da ngay yeewu jàkkaaroog sa mu soxla building nga di ko xool nii. te mënuloo ko kooku nga dem si géej gi xaru dee moo ñu ko gënal. dañu état jàppale ñun nekkuñu ay noonu. dëggoo ma Siteu champion la ndaanaan la tey fi nga toog nii nii nii barki alxuraan ke mu yaanjee ba nga mu fee toog di def interview si moo tax. mais na waaye. ma ne barki alxuraanu karim dañoo dëkk si banlieue bi fi nga xam ni foofu la coono tàmbalee. Hmm. booy ñi ñi yoruñu te ñi ñi amuñu da ngay yow jàkkaaroog sa yaay mu soxla building nga di ko xool nii te mënuloo ko. dëgg kooku nga dem si géej gi xaru dee moo la ko gënal. nañu état jàppale ñu neexuñu ay noonam. Mhm. si lépp lu mën jàmm gën moom moo tax si bu demee ma jàmm gën set bi ba nga toog fi def interview si moo tax. dëgg la barki alxuraan di sonn si biir jàmm gën. di jël ay saret ay mbodo di ko jox booy booy di jaayante. barki alxuraan ak yeneen yeneen si da mu ngi koy def kon si da tey boo ko xoolee da nga ko Siteu ba muy dugg si làmb yow barki alxuraanu karim laa la waatal yow xalaatu woon sax Siteu dina am benn pantere ba tabaxal ba tabaxal yaayam kër mu xaritam bu gaañu mu jël kooku noonu tabaxal yaay kooku kër kon Siteu même boo ko faralu même boo ko bañee jour làmb ji boo xoolee sax da ngay bëgg yéen a ko ndam barki Seydina Muhammad làmb ji nii dañ see teg suñu bakkan lañ si teg làmb ji bu laajee ma joxe sama bakkan ma joxe ko bii du yooyu waaw bii du yooyu mi nekk foofu di wax barki alxuraanu karim moo Aliou Kéré ñoom laa bëgg ñi noppi si ji. man Aliou Kéré kan la. xaw ma ko sax damay c'est vrai que damay nii booy di wax nii nii sax man góor a mbaxal xaaxa moo soo leen ma ko wanul nii du ma xam parce que ay saagaam rek laay déglu. parce que dañ may ay vidéo am naam doomu si la tontu kii man du ma ko tontu moom xaw ma sax mais dama ko ne. du sa morom yow góor a loolu laa bëgg nga xam ko. barki yàlla booy bu ndaw bii nii sax mooy sa morom. <laughs> billaay wallaay laay mais lamb dafa mel ni bisu tabaski la dara day tuuru de. <laughs> ñoom. ñoom si boppam. ñoom si boppam xam la laa leen wax. bu suuru lamb ja ñoom bu ñu yow seydaane bu ñu félicité. nen ñëw ñu dugg si stade bi nànk par nànk ñun loolu la ñu woote si la loolu la woote de. fii jéego may jàmm gën laa fépp képp ku taal sa portable di saaga Modou ñun sant ñu la ko yónnu ñu la ko ñoom ñoo koy def mais ñun duñ ko def parce que ñun sequñu ko ak moom. ku ma nga ne. maanaam mosuma xam ci waa jàmm ragal mais bii paa saa Touba leen a napp. nee na leen damay ñëw ci open press bi jaral leen ñu jëlee open press bi jàmm gën nga xam fi lan dëkk yóbbu ko jënwaar. ah Ilaah la naar. loolu damay may booy bi tontu ko. damay may booy tontu ko. booy tontu ko kay doxal kay. non doxalal may booy tontu ko. su waxee loolu dëgg. bi la laa la wax fii balaa nga fiy dugg laa la wax waaye ku moo ngi neex si média yi di poxaleer di wax lu ko neex. loolu combat ay dëmm. bi bu ësë bi la de bu doof bi la yamin bi kase li ñuy toog barke alxuraan te le 24 ñu génn pëndal tali bi woote woote waa passé yéen doo leen dërëm barke alxuraan day daw rek yamin bi li ñuy topp rek di dem. illaa yow. mais ak gars yi takk nañ baasi man moom waa jàmm gën moom barki yàlla amoo seen fay. illaa mais dégg naa fii fii. njaago bi waa njaago. <laughs> njaago bu tàng bi bu ës bi bu dof bi kooku dégg kooku mooy Lamine Yamara barki alquranu karim kooku xolal kooku su may wax si moom sax sama xol day tooy quoi barki Seydina Muhammad kooku dafa ñëw gis waa gàllem lu ñuy dund barki alquran ke mu ne maire damay tax ngeen mu dugg si arène bi te ba mu duggee si arène ba tey da koy jaayante barki alxuraanu karim kooku incha allah rabil dina dégg daali te saa Touba dama lay yónnee si moom ah. ne ko ñetti portable la mi ah. mi ngi si kaa mbaaw benn xale bu jigéen moo ko far ko woo na ma téléphone pour mu ñëw jël si ko waaw loolu loolu saa Touba kaay jël sa portable ndax man temps yoru ma portable damay jël benn bi de dama la koy teel wax ngay dégg nag trois iPhone la benn bi onze la ñaari douze la xam na lu ma koy bu baax a baax góor a sa lamiñ bu rëy bi kaay nga jël say portable kaay jël si portable Sa loolu kese laa la sant waaw mais nag xoolal sama booy bii nii si ginnaaw nag ngeen jëloon parce que ku bëgg jàmm gën la nag buuba barki alxuraani karim lu leen lay def muy jàmm gën barki alxuraani karim moom sama doomu ndey billaay ñu leen di jaajëf waa kii mooy waaw maa ngi sant bu baax joxal Cissé bu baax Cissé Cissé asa bëgg naa de di bëggee ñëpp barki Serigne Bamba laamu ji billaay wallaay tàllaay loxo day dar gémmiñ billaay wallaay barki Seydina Muhammad dama ne yuuxu dina jógee fu nga fogeewul barki alxuraan kariim moom noonu may leen leen ko fi lépp am na ay lam yama am na lépp njaago bu dëgër bi xamuñ boobu xanaa ni nga xaar le 24 njaago xaar leen ko le 24 barki Seydina ngeen tam ñu ay dëmm barki alxuraan dawoo leen dara barki Seydina Muhammad ay saa courtier yéen ñooñu noonu dawoo leen dara ay saa toobaa nekk si réseaux sociaux yi di poxaleeru doon na si dërëm laa wax lamb ak ñoom la du moom ay pimpi yooyu noonu yaa ngi yee nañu xaar le 24 incha allah rabbi jërëjëf